1993, 1993, nous avons participé à dafa élection présidentielle Si l'élection élection 1993 51 Mme cent maanaam qui n'a jël participé à l'élection, 51 pour même en 2012 l'élection présidentielle 51 donc ñoo participer participé. président du ñi koy fal dañu waroon nekk li ëpp ci sénégalais yi moo tax ñu ne du ñu bàyyi dañuy participer ci eh bien noo xamante bu ñu ko defee ñiy jël seen carte dina gën a bari et ñiy voté dinañ gën a bari. moo tax ginnaaw stratégie ñuy def ci télé yi ci réseaux sociaux yi def ay sketch def ay sport ñu ne baax na ñu jël euh, juróomi junni nit muy 5000 relais ñoo xam ne dañuy dem ci quartier yi ci gox yeex gox goxaan yi ci département yi.

ak campagne bi ñuy def bëgguñu nit ñi bu ñu solee t ñu def ne dañuy parrainage pour candidat parrainage bi ñuy def du parrainage candidat parrainage électeur bi la relais bi day dem parrainer électeur topp électeur bi di ko puus di ko puus ba mu jëli carte topp ko di ko puus ba mu jëlee vote ba mu vote ji loolu mooy différence bi moo tax ñu yàpp ne ci ñaari weer yi relais bu ci nekk am na objectif weer bu nekk nga mobiliser 150 électeurs si ñaari weer yi dina def 300 électeurs boo ko boolee 5000 électeurs nga gis na ne 5000 relais dinañ jot 1 million 500 directeurs électeurs yoo xam ne dañ leen touché ñooñu relais yi dañ leen surveiller chaque weer chaque semaine ñu yónnee ñu ay rapport ci liggéey bu ñu liggéey ñu leen di jox ndàmpaay bu ndaw pour ñu def liggéey boobu. looloo taxoon ñu xaar ba parrainage bi xaw a sedd ñu def parrainage électeur jërëjëf waay